dégg nga nee na dafa la waxoon ne la ba tey la akulu min ka xasa talin bu ko waxee rek euh, tëñu na da ca boo bi indi euh, xal ku wér bi indi bi aw dumut lekk ci tontóor bii xasaf kax bi xasaf kax bi rek tëñu na xasaf min bi ak kax bi moo tax mu ne ko ah, kon tëñu waaw sa talent kon tëñu na dégg waaye nag la talent aw talhan la talent aw talhan bu ne la akunu talent dama nekk tontóor mii aw talhan wala tontóor bu mën doon nag bu mën doon nag bu mën doon tëñuwul kon tëñuwul nag dégg nga wax bi asaf na min ba asaf kaax bi asaf alkubeer bi yëpp xasan daal ifsaar wa yul asaf ilu isaar bi yëpp asaf na ko indi talxa bi dong mu am li foog laam wala mu nekk nakira te ñuul la akulu talxa aw talxaan ñuul ci yax bi nag moo tax talxa bi mu ne ah illa nabi sa sabibin lu mooy xonjum resin la akulu sabiba aw sabiban naan ci ndox ma ah te ñu na te ñu na wa maraqata laxmin ñeexum yàpp la akulu laxma aw laxman du ma lekk yàpp wii wala yàpp mën doon naan ñeex ma tëñu na aw sax mi yii wala gereesu yàpp wa laa akulu laxma aw laxman lekk gerees ba tëñu na wa xuf sa xamihin nekk mburum bele laa akulul xamxa aw xamxan lekk mburuma tëñu na wa asira enabin nekk noonu nalitu resin laa akulul enaba aw enaban naan lekk naan nalit ma tëñu wa ma an batat ak la mu saxal xintatu ak la xinta ba saxal dégg wax bi inaa bu fekkee dafa yéene alman na dagg tiitar dafa am ko ko jox kii saako ceeb mais bu fekkoon du man daal nga faatu wala saako dugub bu fekkoon du man daal nga faatu mu mer ñu dootu lekk ceeb ah wala dootu lekk li nga xam mooy dugub moo tax mu def ko ah bu ko lekkee tëju na bon tëju na de ba dégg nga bi waaye muy nekkoon kon dal radaatin nag wax mu bu fekkee dafa nekk ngir yéesub du yéesub ceeb ba ceeb bi nga ko jox li ñu daan wax li ñu bu yàgg ci bësi bu xonq bi nga xam ne bu nga ko joxee ñu naan bësi fas yi la wala bësi mbaam yi la moom mu ne génn ne dootu lekk dootu lekk bësi dootu lekk bësi mukk nag parce que bësi bii dafa bon day loor nit fekk lam ñaaw a tax ak na melokaano bu gisee beneen boo xam ne ca ca bokk mais ñaawul set na rafet na bu ko lekkee aw li soo i sanaatin taami wala ñaawu liggéeyu ñam wa dañ ko toggee moo bon togg bu bon lañ ko togg mu lekk ci bëgg dee lekk ci biir bu xuree ko biir bi daw mu ne géej naa dootuma lekk ñam wii bu gisee feneen ñu ko togg togg bu baax bu ñu lekkee tëñuwul dégg nga wax dégg nga moo tax mu aw li soo yi président bi ne boobu bi xamaa mi tuñu na ci dugg ci waañ su beti ci néeg du ma dugg ci waañ dugg ci néeg ah du ma dugg ci nekk ci néeg dugg ci waañ tëñu na tëñu na du sàngam du ma dugg néegam mukk dugg ci waañam tëñu na aw daari jaari yii wala kër dëkkandooram masal bu doy waar du sàngam du ma dugg ci këram mukk du ma dugg néegam mukk dem ci xaritu sàngam fekk fa diw mu toog ah tëñu na ibnu xasim moo ko wax de ko laaj ne ko koo xam ne dafa géñ ne du ma dugg ci kër diw sàngam dem ci xaritu diw sàngam fekk fa diw sàngam mu toog mu ne tëñu na dañ koy gënal dana ko leeral nag bu fekkee lam na moom mooy du ma dajeeg moom mukk abadan du ma dajeeg moom dégg nga wax bayti saarin wala néegu néegu ñax mu néegu kawar néegu ñax duma ma dugg ci néeg diw sàngam dugg ci néegu ñaxam tëñu na tëju na a dégg nga wax bi tëju na donc dafay tëju dafay tëju de mhm. nee na kaaf sin ni ki tëj goo xam ne ukkiraa lañ ko ci forcé waaye baax kenn nag ci ci boor bu mu yoral nit ñi du ma dugg ci néeg mukk néeg ma du ci dugg ndeka dafay fees del ak bor ñu tëj ko kaso tëju na mu ne waaye laaj bi ma ci nag waxuma ci jàkk nag du ma dugg ne dugg jàkk moom kon tëñuwul moom déedéet du dugg diw ni diw sangam ah dugg jàkkam tëñuwul de tëñuwul dugg néeg sàngam xale moom ma itam mooy aji faatu fi béyt ni boo ne yem ni ko dina ko moom dégg nga du dugg ci néeg diw sàngam diw faatu nga dem dugg ci néeg boo xam ne néegam la tëñun parce que miraas guñ miraas guñ ko sama ko moom waaye nag laa bi duqool yi ma loo fi naa léegi waxuma nag bu fekkee nga xam ne ka nga wax ne du ma dugg kër a mukk moo ñëw sa kër wala ka nga wax ne du ma dugg néeg moo ñëw sa néeg kon du tëñu in lam yéen dem yéenuwul amu jaamaata baña a dajeeg moom fekk lim ci yéen mooy du ma dajeeg moom mukk daal donte di ñëw fekk si la tëñu nga su doxalaa lan fiim